ngir xeex jógu dund bu cher bi junni volontaire tàggat nañu leen ngir dooleel contrôle bi ci boutique yi ak yu ni mel. ñu ñoo dénk secteur commerce te xamuñu ñaata boutique am senegal ràññeewuñu kan mooy demi grossiste kan mooy grossiste ak kan mooy détaillant donc looloo tax bi ñu tëjoo lëlu liggéey ak service yi ñu ne nag wax dëgg yàlla. balaa ngay yedd nit xam sa bopp. gërëm commissaires yeeg contrôleurs yeeg vérificateur ci liggéey bu mucc ay boobu ñu def ba tey tax ñu mën a am programme boo xam ne fii ak fukki fan ak juróom danañ mën a wax ne région de Dakar kat nangama fi ne ci ay bitik bu ci ne koñ bii la ne bu ci ne lii lay jaay bu ci ne lii lay jaay. mu dolleeku ci dogal yi nguur gi jël yu mel ni wàññi njëg yi ak subvention yi mu def ci yenn produit yi. état du Sénégal li mu séddalee diggante daaw ak ren ci subvention ak jàppale nit ñi ci li nga xamante ne mooy njëg yi. ëpp na 1000 milliards bu yàlla defee léegi ci benn at mën nañoo jël 700 milliards def ko ci njëg yi rek ngeen xam ne kon Sénégal dox na. volontaires yi nag dinañu nekk ci terrain bi ngir saytu limuk boutique yi waaye itam xool ndax ñu ngi jaayee ci njëg yi ñu tëral. ci formation bi nga xamante ni jot nañ ko def euh, monsieur Serigne Diaw moo ñu ko defaral jàng nañ ci bépp instrument wu commerce euh, contrôle des prix fraude yi nga xamante ni war na am. de telle sorte que ñun bu ñu wàccee ci terrain bi xam nañ lan moo ñu wax lan nga xamante ni mooy norme yi te dinañ def le tout pour ñu respecter ko. liggéey bi nag yamul rekk ci jaaykat yi. ndax ci ay bés yu néew. location bi dinañ ko saytu ngir xool ndax ñu ngi wàccoo ak dogal yu yees yi.